damaa wax ne koo xam ne lu baax rek nga xam xamoo leneen ba di ko def ku xam leneen mën naa def leneen waaye koo xam ne lu baax rek nga xam lu baax rek ngay def te itam li may wax jàpp naa ne ñu bari mën nañ koo seere ma wax ni itam euh, dox nga sëñ Abdou Aziz ay oto yu takku soo ko commencé am wata boo moom mën naa wax sax diirub li mu fi ne yaakaaruma ni am nga oto boo moom wala boog wala boog diir bu néew nga ko yor ñi fi toog ñëpp te fekke ko mën nañoo wàññi ay wata yu takku yoo xam ne yëkkati ko joxe ko addiya te da ngay dugg saret loolu nag kenn ku nekk xam na ne ak taalibe ak pas-pas mooy li nga xam ne moo ko mën a lal te loolee delluwoo ca gannaaw ñi fi sëñ Sidi Muxtaar nekk yëpp la nga ko mas di la nga wax mooy fu ma yendu yaa ma fa yendal fu ma fanaan yaa ma fa fanaanal waxtu wu nekk ndigal lay déglu léegi bi ñu ànd ak sëñ Moustapha ñëw ci yow itam loolu nga waxaat sëñ Moustapha ni ko la ma waxoon sëñ Sidi Muxtaar loolu laay yeesal ci yow fu ñu yendu yaa ñu fa yendal fu ñu fanaan itam yaa ñu fa fanaanal kon sëriñ baa ngi lay nuyu bu baax mi ngi lay sant mi ngi lay ñaanal mi ngi lay siyaare itam pour bañ a guddal sëriñ Abdou Aziz bi nga xam ne moom la ñu defal bis bi dinaa ko rappelé ndax taxawaayam ñëpp teg na ci seen bët ci kër sëriñ Baara lan la fi tabax ñëpp teg na ci seen bët ci ci kër sëriñ Baara euh, ndax wax nañ ko démb doom yi ñi nga xam ne ay doomi magam lañu ay doomi rakkam lañu mosu leen a jaawale. ak ñi nga xam ne ay doomi boppam lañ mën naa wax ni sax bu doon joxee ñu bokk fa toog ñi nga xam ne ay doomu rakkam lañu ñoom la ko jox loolu nag ab cër bu nu ko weesu taxawu leen ci éducation taxawu leen ci yar taxawu leen ci lépp euh, ba ñu agsi fi ñu agsi bi yàlla dogalee itam sëriñ Sidi Muxtaar jël relais bi moom itam la mu war a def lépp mu def ko defar kër sëñ Baari ci Gouy Mbind kërug boppam ga mu dëkkaloon boppam ca Mbàkke Kajoor mu jël ko jox ko jox ko sëñ baara soo ko defariwaat feneen foo xam ne pour ak pour ak njabootam la jënd kër ca ndakaaru joxat sëñ baara soo ko wëlbatiku nag def def li nga xam ne da koo waxuma da koo defal yoonu murit mais umma islamiya bépp képp kuy sëgg di julli am na lu la Seex Sidi Muxtaar defal te yëgoo ko ndax ku boole jullit ku boole ñaari jullit yu yu yu féewaloon te ànd rek am na loo xam ne liggéeyal nga ko jullit ñi waaw itam ñuy jeexale suñu kàddu rek fi ñu ko baaxoo jeexale digal nit ñi ñu sax ci jaamu yàlla ñu sax ci liggéey ñu sax ci booloo nekk benn di jàppandoo di yëkkatandoo boole seen bopp ñépp dekk benn ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li fiy maye jàmm te àdduna feek ñi jubadi ñi ngi ñee feek ñi jubadi ñi jub ñi ngi leen di ñee àdduna du baax mukk dañu wara fexé ba nga xam ñi jub dañu ñé ñi ñi ñi jubadi dañu ñé ñi jub ñi nango liggéey ñi nango wuté liggéey dañ leen di ñé fék loolu amul ci ci ci réew ci réew mu mëna doon ci aduna bu fa bu fa loolu amul du dox kon ñu dénk nit ñi ñu sax ci njub ndax njub ci la ci la lepp nekk bés dana ñëw bo xam lulul deug du fa am njariñ lulul njub du fa am njariñ te bis boobee kenn ku nekk ci nun bu mu jàpp ku ni mën naa tedd tedd tedd ba bis boobu jaas ko ndax sunu borom bind na ko ba noppi te sunu borom lépp lu mu bind wax ni danaa ko diggaale ak yéen loola moo xam waxtu wu mu doon waaye dana ko def kon nag kenn ku nekk ci noonu waxtu wu ne war naa xalaat bu sunu borom wéetee moom ba nga xam ne moom ñoom ñaar képp ñoo des mu di ko laaj te foofee kat saa boo bëggee weddi sa cër yi doon def li nga doon def ñooy cër ba mooy wax ne maa doon def nangam audit la ba nga xam ne duñ la ko laaj rek nga defuma ko ñu bàyyi déedéet buñ la laajee tey ñu cër bii def na nangam nga bëgg a wet ni defuma ko cër bàyyi jóg ni man maa ko def al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanoo yaksibuun kon ñuy dénk nit ñi booloo dénk nit ñi nekk benn wax naa ko démb ni gumbind gi moom naka jekk loolu mooy li nga xam ne moo fi ma sa nekk booloo ak nekk benn euh, ganente ba ba ba wax naa ko ci nganu sëñ sëñ sëñ da sëñ siidee nga koy wax bërki démb ci nganu sëñ dan gi mag ñi dañ daan ganente di seetante ku ciy dem jël ñëpp jarbaar yaag ñëpp yóbbaale ña war a xamante xamante ñi xamante wutoon xamante waa ne loolu boo booy xool am na côté yu baree bari yoo xam ne jóg na fi kenn ku nekk sëriñ bi dalaa defal defal defal ba nga jàpp ne mel na yow képp yëfi sëriñ bi yaa ko yor te fekk yow doonoo ci dara ndax sëñ Abdou Lahad waxoon na ne sëriñ Touba ba mu ñaan bu gestu woon du gis ku ko ni amin kon nag xéewali sëriñ tubaa yu bari yii te yaatu ak jàmm jii ak ak ak ak dayo bi ak taalibe yii képp ku yaakaar ne yaa ko moom da ngay nax sa bopp taalibe nga nit ñëpp da ngay doon jëwrin kay jiitu ci ay nit waaye sëriñ moom benn lafiti sëriñ Touba moo ko doon kon ñoo ngi nuyu ñëpp di sant comme ni ko sëñ sii di waxee bii gi tam di sant donga yi ndax lu fi am ñooma jumaa ji buñ ko tabaxee ñooma loo fi mësa loo fi dégg résultat boo fi dégg ñu ni diwoo ko fi def te doon kilifa dëgg la de initiative ba ak moom ko bu ko neexoon taal ko jël ko def ko ci loola loola moom kenn mënu ko koo fay ñëpp xam na ne mooma waaye nag loo fi gis donga yee ko liggéey lu ñu leen woo ñu wujj ci lépp loo nga xam ne sëriñ bi bëgg na ko buñ ci wooj donga yi ñu wujj ko da gis koo xam ne bu ñu wootee boo am dépasse boo bàyyi sa kër te la nga yor kus néew da nga dem joxe ko ne nañ ko def ci liggéeyub sëñ bi kon ñooñu kenn mënu leen a fay waaye sëñ Touba mi ñu koy defal moom am na pay te bés dana ñëw ngeen xam ne am na pay ndax wax na ni euh, lépp lu ci man balaa mu may xam dëgg dëgg dëgg dañoo wàq ba mu xóot nit taxaw ci biir ñu nangu ko cornet ko dem ko bàyyi ko fi su boobaa day ku ko man fuuf dana fa ñëw ëpp ko doole jot ndigal te du ko yërëm waaye boobaa bu ñëwee sëñ Tuubaa la fa fekk asalaamaaleykum wa rahmatullah